ba loolu ñun yàgg nañ ci wax euh, peut-être daawuñu ñu dégg bañ koy wax mais yàgg nañu artu sénégalais yi et surtout man peuple sénégalais bi lay waxtaanal euh, parce que li important mooy peuple bi ak ndaw ñi ak citoyens yi c'est vrai xam nañ ràññee mais xam nga Sénégal dafa bindoo noo xam ne nii très souvent euh, presse bi ñi nga xam ne nii dañu am peut-être voix discordante wala ñuy ŋàññi pouvoir bi peut dañ leen di ubbil micro jox leen mais je pense que la responsabilité euh, des médias dans la prise de parole dafa importante ñi ñuy jox kàddu gis nga réew mi gis nañ fi ñu bari ñoo xam ne nii média moo leen créer mais en réalité amuñu droit parole sur l'espace public gis nga loolu bokk na ci problème mu réew yëpp ak li indi réew mi ak li indi réew mi fi mu toll. Mhm. xam nga gis nga réew bu ñu toogee ba du ñu wax dëgg nit ñi jomb nañu wax dëgg. wala bu ñu waxee tey suba ñu weddi leen wala dañuy wax juste pour attiser la haine attiser la colère des population gis nga Sénégal gis nañ fi 2012 ba léegi loo xam ne nii mu ngi doon judd ay nit yoo xam ne nii xaste saaga wax lu dul dëgg euh, bëgg indi dictature ak terrorisme ñoo xam ne kenn xamu leen ci politique kenn xamu leen ci politique certes c'est la faillite des partis politiques traditionnels mais tey nekk nañ ay ay ay ay problème ci réew mi si ci ci irrespect des institutions ci ñàkk wormaal kilifa diine yi wax nañ ko ci reportage bi léegi mhm. seen fonds de commerce ci el contestataire ak ci idée yoo xam ne nii teguwul ci dara parce que am nañ gis-gis bëgg nañ nguur bëgg nañ jot ci nguur gi Euh, bëgg nañ ko ci te yaakaaruñu ci démocratie principe et fondement démocratique mooy jël nguur ci élection yaakaaruñu ko ci loolu loolu nag euh, dama jàpp ni dafa nekk ay kàddu yoo xam ne nii euh, jaaduwul ci démocratie am na jikko yoo xam ne nii ñu koy bàyyi mm-hmm. parce que gis nga nit c'est pas parce que il est de l'opposition wala il est du pouvoir war ak fu mu munti toll def lu dul yoon lu yoon wala loo xam ne nii méngoowul ak charte réew mi dañ ko war a wax ni li nga nekk nekk. y a des opposants respectables ñoo xam ne bu ñu waxee nga jox leen cër parce que jéemu ñoo xajale kenn te ils acceptent que ne xëy na ki ñu mën na bañ a bokk ak ñoom avis mais li ñu gis fan yii nii at yu mujj yi sax laa wax mi ngi doon rampe boobu ba tey dafa doon lu doy waar yaa ngi koy wax la presse am na ci responsabilité parce que aussi vous. quête du pouvoir est-ce oui. que amul lu ngeen ci jouer dans la mesure où la nature a horreur du vide te am na ñoo xam ne ñoo fi nekkoon ñu responsable mais gis nañu que ne ñu bari après dañoo disparaître ci paysage politique bi disparaître entre guillemets non parce que non non non non xam nga lu xew c'est-à-dire que dafa am catégorie politique bu bees boo xam ne nii dañoo ñëw xam nga gis nga àdduna dafa xaw a. ils ont profité d'une situation. non ils ont profité du situation ma dama lay jéem a defal benn analyse beaucoup plus profonde. Mhm. gis nga ci àdduna bi. dafa nekk ay difficultés ak contexte ak crise bu fi nekk boo demee dans tous les grands pays gis nga modèle boobu pratiquement mu nga jóge Autriche c'est-à-dire que ak un discours populiste un discours révolutionnaire un discours incendiaire un discours en marge c'est-à-dire que forme de pratique politique traditionnelle yi dañ ko dañ ko dañu indi loo xam ne nii ni ñu koy waxee ci kii une forme disruptive de la politique ak dans le discours loo xam ne nii lu kenn daawul wax ñu wax ko lu kenn ñemewul laal ñu laal ko dafay dem ba xam nga foofu ñi bëgg sensationnel. Mhm. ñoom la ñuy déglu. mais dootuñu déglooti homme politique responsable pondéré et mesuré loolu moo loolu nag Sénégal échappé wu ci loolu moo tax ay xeetu homme politique yoo xam ne nii jaaruñu ci benn daara politique yàgg naa wax benn mbir te ñu jàngal ñu ko ci politique. Mhm. gis nga ku nekkul ndongo daara ci politique munoo nekk sëriñ daara. Sénégal loo xëy nga gis ay nit ñu ne ay président mouvement lañ ay président parti politique lañ ne dañoo bëgg a yor réew mi kenn mësu leen xam ci parti politique jaaruñ ci benn instance amuñu benn formation toog yor la parole publique di wax ay ndaw topp leen ñooñu fan lañ mën a teg ndaw ji mënuñoo xëy rek woote seen daara ber seen daara nekk sëriñ daara te mësuñu nekk ndongo daara donc tant que ñooñu. sa nous amène aussi à la des partis politiques. absolument gi ñu def ak aussi ñàkk am on est obligé de le faire parce que gis nga li xew ci réew mi. bu buñ ci jógul fi mu toll nii ce pays fa mu jëm kenn xamu ko. Mhm. parce que gis nga démocratie on a choisi de vivre en démocratie on dit ñiy jàng ñëpp ci école science politique yi ñu ne leen démocratie c'est une forme de gouvernement de vie en société c'est pas la meilleure forme mais c'est la meilleure c'est la plus c'est la meilleure en fait. Euh, formule moo ci tane c'est la moins mauvaise. Mmh, mmh. la démocratie comme on le dit en sciences politiques. même si avec ce qui se passe maintenant on se rend compte que am na ay limites. c'est la moins mauvaise formule de gouvernance am na ay limites moo tax c'est la moins mauvaise. Mmh. parce que soit vous acceptez de vivre en démocratie ou vous acceptez de vivre dans une monarchie c'est-à-dire en royauté. Mhm. soit vous acceptez de vivre dans l'anarchie la plus totale donc il faut une organisation donc bu ñu tàmmee dugg démocratie nag dafa am liberté am responsabilité am état de droit mais ñi ci nekk dañu war a respecter règle bi mais mënuñ ñëw ay nit commencer parce que règle yi dañuy commencer di ko pousse ndànk au début président de la république la ñuy attaqué ensuite ñu attaque gouvernement bi attaque yenn institution yor benn discours bu ñuy enrobé boo xam ne nii projet ba la nekk ci biir Euh, mooy saper les fondements de